ahousubillahi min aseytaani rajim bisimillahi rahmaani rahim waa groupe bi maa ngi del siwaat rek àllaat ak yéen ci ni ñu ko doon tàmbalee rek topp ko ba agsi ci tey ci waxtaan wi nga xam ne moom laa bëgg a toftal ci bi ma defoon tey ci suba bii nag bëgg naa mu yaatu lool ndax sénégalais yi nekk bitim réew ñoo tax ma di ko def bëgg a def alertation rek ñu ànd ak xel ci li ñuy def bu baax a baax a baax bañ a topp xol yi ba tension bi di yéeg bañ dugg ci loo xam ne si mën naa dem sax ba far wëlbatiku ci ñun contre ñun loolu nag bu ma ko waxee dafa am ay preuve yu ma ko teg ndax depuis ci suba ak démb yëpp maa ngi topp internet bi di suivre publication yi ñuy def ci seen YouTube bi ak yi nga xam ne ñu ngi koy partagé di ko dugal ci Facebook bi ak yi ñuy partagé di ko indi ci WhatsApp yi. Italie gii ma nekk nag ci lay tàmbalee bépp moodu bu nekk ci Italie te yàgg dégg may wax te la may wax nga di ko déglu di ca jariñu moog lii muy bëgg wax ñoo bokk yam ci yow te sama bopp laa ci jiital. réew mii ñu nekk ay étranger lañ fi dëkkuñu fi donte am nga fi nationalité taxul nga dëkk fi parce que bokkuñu culture ñun ay africain lañ ñoom ay européen lañ boo nekkee cim réew defoo lu mat fanweeri at ak nangam ñii defa lu ko ëpp ñii defa lu ko manqué ba ci génération bi mujj ñëw loola am jàngat lañ ci war a jëlee moo xamee ne que nii sunu comportement moo koy wane. manifestation dëgg la baax na waaye réew mi réewum Sénégal administration bi du administration Sénégal ay italien ñoo ko moom te amul dara lu ñu liyee ak ñoom ci wàllu colonisation wala dara relation moo dem ba yàlla dogal ñu boole ñu suñu biir waaye amuñu Sénégal benn benn relation li may wax na wala bal na pour Europe gépp ñi nekk France ak ñi nekk Espagne ak ñi nekk Amérique partout dans le monde fu fi étranger nekk rek Sénégal la nekk rek lii may wax yaa ci biir manifestation dëgg la réew mi lu ñu may ci ay euh, autorisation ñuy manifester ñu di ñu accompagner ak autorité yi suñu réew mii ñu juddoo may ñu ñu ko sun réew mii ñu juddoo may ñu te dañuy encadrer ñu def liñ bëgg a def wax liñ bëgg a wax italien nag du jàpp kenn ciy wax donte da ngay saaga sax jàppuñu kenn ciy wax waaye nag violence moom duñ ko ko séenate te violence boobu képp ku ko ci dugg dana la coûter cher coûter cher sa morom coûter Sénégal eh, coûter cher ñi nga xam ne ñooy étranger yi fi nekk dëgg la bu fekkente ne jox nañu autorisation ñu jox ñu ko koy wax dëgg yàlla lu ñu neex mën nañu ko def comme ni ko waa Paris di defee ñeneen di ko def lan mooy ndeyu Sénégal yëpp bokk dajaloo ci benn ci ci consulat Sénégal bi nga xam ne Milan la nekk ngeen gis vitrine yi ñu ko def muy immeuble bu mag nga xam ne du se consul ba dong moo fa nekk ñul bare nga fa ñuy am xalaatub di yéeg ci biir di def ay révélation naan dañuy taal kii bi yéen bu ngeen ko taalee ñaata document ngeen fay ngeen fay yàq xam ngeen lu mu doon kaye régistration yi nga xam ne registré nañ ci ay document yoo xam ne si seeni borom ñi koy topp di ko siiwal xam ngeen nu mu toll xam nga lu ci seeni borom daj ñiy égaliser seeni kayit jëlee ko Sénégal fay ci ay xaalis bu dul yàq topp ko mu ak ñu di ko égaliser ak di ko ak di ko traduire xam ngeen nu mu toll xam nga ñaata document moo fa tëdd ñi déposé passeport xam nga ñaata document fa tëdd ñi déposé carte d'identité xam nga ñaata ñaata fa tëdd ak lu bare bare bare bare loo xam ne si loolu yoonu Macky Sall ni ku ci loolu nun sénégalais la concerné ndax ko soxla passeport bala ngaa am jàmm da nga ko am da nga gis ko dox fii juróomi téeméeri kilomètre jógee Sicile ba ak si Milano fanaan fa tax nga lu jënd ko fokk nga jël otel wala nga ñëw sa kër xarit yoo dem dëkk ba keroog nga koy mën am boole ko paas yi loolee lépp nag ay Sénégalais dajale ko fa te loolu lépp ci ñun lay ba ñun ñun ñun lay duggaat te jamonoy passeport gis nga fi ñu toll nii ni mu jaabaa jongee jamono bu jot am na ci génération moo xam ne seen passeport ci jamono jamono jooju lay jeex yeneen restaurant yi ñu ngi jël ay ay ay ay car di organisé bu ñu amee quinze personnes wala lu ko ëpp wala lu ko manqué daal di def benn bloc ci turu association bi dikk ñu daal di dagg seen i ñu daal leen dagg seen i ñu daal di leen ñu dem bu ñu koy jëlee fii ne kenn ñëw rek def ko délégué ñu jox ko lépp mu def ko ci walisam di ko andi te fekk passeport boobu yaa ngi ko doon tumuranke fu nekk nga defa dem fu ne di ko am est-ce que yëfi nit la tey nga dugg ci ab amabal ba ñu jël kayit di ko jël di ko jël ci ay fenêtre lañ jël ci fenêtre yi sax moog ko yam ko jël ci fenêtre ko mën a organiser dajaloo ko ñu jël ko sànni ko buñ ko sànni ana borom fan la koy toppee ki topp aw kayitam lu mat 6 mois mën fexe ba li bëgg mu am ci nga xëy xëy xañ ko ko nga bëgg mu fii amul lu fi Macky la def dara lu dul indil ñu consul beeg ambassade bi te loolu ñun lay jariñ nañ ca xool son intérêt benn gi noonu tey bu ngeen dof dof loo tey ba yëkkati taal fii tey mu taal immeuble bi déglu leen bu baax li ma leen di wax dof dof lu gi ngeen di bàyyi te nekk nit fi mu ne Macky Sall dafa toll ci diabolisation Ousmane Sonko pour international jàppee ko comme ni ko ni ko jàppe moom pour wane ne moom ay terroriste lañ parce que fenn fu ne affiché na ko fa yebal fa ambassadeur bi mu annoncé ko waa réew su toppee di ko xeex di ko xeex di ko di ko di ko xeex muy affiché fépp neen parti boobu parti violence la day dàq seen i te gis ngeen ne fi ne guddi yiñ toll diggante russe ak européens yi doxatul gaz bi fi doon dox ak yooyu yëpp coupé nañ ko léegi ñu ngi jéem a daw di di wut si Afrique ñoom ñëpp jël seen bët bi teg ko biir Sénégal te loolu ñu war ko téyal suñu bopp réglé ko ñun moom ko liñ ci war a am ñu di ko am doomu Sénégal benn bu ne gis ci boppam Macky Sall toll toll ci di ko di ko jaay tubaab yi di ko dundeek fa bàyyi Sénégal yi ñu toll ci xeex boobu di ko xeex dégg nga mu di ko collé motif ci ay terroriste la nangam ak nangam parti violence la nangam la léegi bu tur woowu bu fekkente ne ñëw ni fi ñu jël sawara ne ko durutal est-ce que du am raison ci seen kaw est-ce que tubaab yi duñ dem ba ñoom ñëpp comme ay naa fekk la ñu daal di xëy xëy sot ànd ak te mbooloo mooy doole et liñ doon xeex lépp ñu mujj yàq ko duutu ñu ami kayit te liñ doon xeex ci Sénégal duutu réglé wu loolu tey tey gënu ko. nañ bàyyi dof doflu gi ndax fi mu toll nii buñ jëlee turu Ousmane nit ku nit ku weex loo ko wax ci ku ñuul ci lu bon mu gëm ko bu ëllëgee tey foo tudd tur Ousmane Sonko ci réew mi ñu ne eh, ñoo ñu def parti violence euh, violence lañ parti violence lañ ndax ñoo fi dem Milan ñoo fi taal Kolda fi ne immeuble boobu bu ngeen ko taaloon gis ngeen xam ngeen yéen maanaam degré gravité bi fan la toll xam ngeen ko yéen immeuble bi gis ngeen ni mu toll largeur bi ak longueur bi te du Sénégal yeneen i bureau nga fa yoo xam ne administration italien yi ñoo ko moom ak yeneen i wasan yoo xam ne ñi nga dëkk foofa ak ñi leen jege ñu def ko nag def ko ci Al Jazeera def ko ci te te seneen yeeg télévision yi ci àddina bi yëpp di ko publier loolu est-ce que dimbali Ousmane Sonko mi ñuy jàppale la. sañ na ñoo dem manifestation sañ na ñoo taxaw saaga sax ci mbedd mi tubaab concerné wul saaga moom faliwul saaga tubaab moom ñaar rek la ko bul def violence bul dóor bul def violence bul dóor su ko defee loolu buñ ko defee kay. image ba day jàll à travers dama ndax télé italien yeeg rajo yi ak journaux yëpp dañ koy bind waa France def noonu waa su mu def noonu Amérique def noonu su ko defee international bépp jot ci waaye bu fekkente ne waa France dem nañ ne dañu taal waa Espagne ne dañuy taal waa Italie ne dañuy taal yéen gravité bi ci nekk est-ce que da ngeen toog di xalaat yéen Macky Sall jël na maanaam Sénégal yi nas ci génn buum fas yéene leen a jabulise ak àddina bi ba ku leen gisati di leen daw lan moo tax naar yi ñu leen daw ñaari états yi ñu daane woon ci Amérique lan moo ko waral xaw ma ñoom ñoo ko def xaw ma naar yee ko def waaye boobaak léegi naar amul jàmm ci kaw àddina ñun sax ñoo doon ci ab privé te sëñ Mamour mi nekk diplôme si ñëw di wër te bu dikkee jàkkaarloog immigré yi di wax ak ñoom ak autorité yi da ngeen a bëgg a yàq image am boobu image sëñ Mamour bi da ngeen ko bëgg a yàq bu dikkee Milan tey war a daje autorité yi ñu ne ko dañoo taal consul ba ñu def ko ci journée yi fépp jëm tey bu dikkee ci wan tur lay waxee tey est-ce que yi duñ mer ba kenn ku nekk liñ doon tolloore ci ñu far ko bàyyi italiens yi est-ce que duñ mer ba liñ doon tolloore ci Sénégalais yi ñu far ko bàyyi bu boobaa kan ngeen di lor ki yor nationalité du mujj ki yor permis de séjour du mucc ki yor carte de séjour du mucc clandestin bi it du mujj ip bu ëllëgee gaal yi ñuy tolloore ay Lampedusa di duggit bu boobaa duñ mujj ndax bu boobaa dañ leen di daw. ku la bañ àllub kese xeeb la àllub kese boo na ngay xam ni ngay toogee xam ne ni ngeen di toogee feneen fi may daane la nag ca Sénégal la foofu it na ngeen fi ubbi seeni nopp gis ngeen temps yi yépp ñu ngi def ay plateau télévision ak ay point de presse ay fenkat nekk fa yoo xam si ñépp xam nañ ne ñii li ñuy wax dara du ci dëgg ñu taxaw di jabuliise ñi nga xam ne ñooy manifestant yi police yi génn def ay point de presse kenn ku ci nekk fi ne yaa ngi xool noo mën a mucce ci mbir mi ba sarse ko sa moroom li ñu daj ci xeex bi ba ak si fii tey buñ toogee fii di ñàkk fayda di def yu doyee di tey bañ jël lépp sarse ñu ko mu nekkat beneen dossier tey fan lañ jëm ah? bu demee tey ba ba defaat ko beneen dossier tey beneen dossier fan lañ jëm tey ñoom ñoom police police képp moo am droit jël police bu jël jël ngànnaay di ko jox koo xam ne si maîtrise wu ko ñu recruter ay mbër recevoir leen ca palais ba yéen ñëpp ngeen gis ba mbër mu ci génn fi la mel na xaj bu génn ci biir mbooloo wala bukki bu jaar ci biir mbooloo ñu daw di ko di leen kar ñu toll ci diggante boobu ñu dem ci ñi nga xamante ne si ñooy band yi jox leen ay fetal solo leen ay yi ñu topp ci nit ñi di fetal ñu war a nekk ci xeexee loolu xeexub xel ñoom ñu dem def ay point de presse wax ne manifestat yi ñoom ñoo yi ay nit jël ay fetal jox leen loolu boobu lay yugul sax manifestat lu muy dox di wut ay fetal di wut ay tëni xanaa bu la joxee fetal tënit mënu la ko jox pick yi nga xam ne moom la ñuy war ak tëni yi ñuy sol ak fetal yi ñu yor di taxaw ci mbedd yi ak taxaw ci état yi di dóor nit ñi bale loolu loolu manifestat mën na ko léegi bu ngeen di dof dof lu bañ sarse ñu ko nag léegi boobu dosee fan lañ jëm ak moom nekk leen nit fi mu ne liñ bëgg mooy police yi rey nit police yi rey nit ñi moom lañ bëgg a décharger waaw police yi rey nit ñi moom lañ bëgg a décharger ci kaw manifestation yi këpp leen ko charger leen dossier bi waaw loolu du benn yoon waaw du yoon léegi su fekkante na nag léegi tey police yi jàpp nañ jàpp nañ manifestation yi di leen dóor ay bal ñu naan ay bal rayal ñu taxaw ci télé bi di ministère de l'intérieur di mii miima ko wax ñu dem wut seeni seeni nervi yi te nervi yi gis nga ne fii na ñoom xam nañ ne gars yi dañ leen di ndax ba ñu ngi commencé di di di di détaché wu commencé kenn ku nekk di wax naan dañ ñoo dañ bëgg a nax waaye bala ñu ñu ko këpp ñu këpp leen ko ñu xam ne ci seen kaw lañ jëm léegi nag su fekkante ne ëllëg tey dem nañ tey ba gis bal yooyu enquête ko bal yooyu kan lañ koy tiré dañ naan waa kër Ousmane Sonko ñoom ñoo defoon ay seen nervi bopp ab opposant nu muy wuteeb nervi loolu daal mooy li nga xam ne moom laa doon wax mi ngi ko bokk partage ñun ñëpp fu ko waaye mën a nga yóbbu ko fa jërëjëf